waaw sëñ bi yow ASP nga lan ngeen ni dund mbir mi est-ce que ba mu ubbee ko léegi est-ce que gis ngeen ci seen bopp. moom pour le moment daal gisaguñu suñu bopp. sonn nañ loolu lool lool lool lool. Mhm. parce que coono yi mooy euh, li ñuy waxante woon bi ñuy jël benn defuñu ko mooy maanaam dañu ne boo leen ñëwee ñu formé leen dañ leen dugal dañ leen dañ leen affecté foo xam ne kenn ku nekk si sa sa gox mais dañoo dem ba ci biir affectation si boppam sax. dafa doy waar grand. Uh-huh. parce que ñeneen ñi dañ leen affecté foo xam ne dañuy fay paas ba bugg dee. Uh-huh. te paas boobu bi ngay fay euh, pécule bu ñuy wax ñu ne du salaire pécule la te dañu ne woon kenn ku nekk fu ñu la affecté dangay am benn prime prime boobu nag mun a doon trente mille quarante mille cinquante mille ak lu mun a toll. Uh-huh. kooku sa sens la. mais dem nañ ba ci biir ñu affecté ñu mu am prime boo xam ne day génn parce que ñun fu ñu nekk suñu prime presque trente mille mais chaque fin mois le cinq. waa ASP dañuy ñëw jël ko yóbbu ko direction ñu ne ñu ñu ne fu waa foofu ne ñoom dañ koy yóbbu parce que après dañu koy jox mais ba léegi gisuñu dara. mais yow fi yow fi ngay monté. ñi ngi leen di dugal waa waa société euh, structure boobu ñi ngi leen di dugalal prime yéen. ñu ngi ñuy dugal prime kay. ñun kay dem nañ ba laajte ba ñu ne woon ñu kayit boo xam ne ASP moo ñëw si suuf signé ak ñoom benn convention si suuf que que que ñoom ñooy récupérer prime boobu après dañ ñu ko jox ba ñu woon ñu kayit bi liir ko. Ah, prime trente mille la. ngay monté mhm. ñu monté ñu ñu koy ba dara. de plus aussi ASP lu am parce que mënuma comprendre euh, structure gouvernement bi formé. tout est légal nga formé nit ñi ba pare nga affecté ci ay ay ay di mhm. di di am manque d'information. direction ñu lay la lakkal monté. Il jël ay des gens incompétents teg leen direction ñoo xam ne kenn xamu leen fa d'ailleurs da ngay dem di information nga naan yendu fa toute la journée ne ko ah. comprendre qu'est-ce que qu'est-ce que cela veut dire. fait daf lool. Mm-hmm. ba mënuñ ci am renseignement ne wax ASP. chaque jour que Dieu fait avec les cinquante francs imaginez francs ñu ne je ne sais pas ko pour suñu suñu on comprend pas. Uh-huh. ñu jékki-jékki demaat encore benn fenn yi mu am nañu xam bi ñëwee seen carte bi ñu daggalan cinq mille francs ñu laajte ñu ne non waaw carte yooyu ñu jox dem banque ba ñu dem banque banque ba banque bi ne nañ doom du ñoom nañ dem ASP mënuñ comprendre avec cinquante mille francs imaginez la vie de Dakar est tellement chère tey ñu bëri dëkkuñu Dakar dañu fee location ñun dëgg la ñun on est des parce que ñun dañoo bëgg suñu réew ñu bàyyi suñu lépp dem armée joxe suñu bakkan Casamance ngi noonu di gën a métti jot suñu bakkan Casamance yàlla def ba ñu rëcc armée réengagé ñu ñu taxul ñu découragé nekk société de garnage Macky ñëw ne damay ubbi société pour mën a dimbali jeunes yi mais xanaa booy dimbali jeunes yi au moins nga dimbali ci loo xam ne dañ buñ si jàppandeeku mën nañ dimbali euh, yor seen bopp te yor seen i waajur te ñun ñëpp presque mois ki ay marié lañu mais imagine a fay location 25 000 francs 25 000 francs moo lay dese 25 000 nga siy génne comme dépense sa passe dañu instant bi dañu jéggi siraat deewaguñu. Mhm. ci jamono bu lañ toll. waaw mais mais mais mais mais tey jii euh, yow ci gardiennage bi nga jógee dugg dugg ci ASP. si gardiennage laa jógee dugg ASP. waaw gardiennage beeg ASP ban salaire ban salaire bokkuñu sax parce que ban fi ma fi ma jógee di ñëw dugg ASP accès laa nekkoon dama daan laal quatre-vingt-dix-huit mille francs quatre-vingt-dix-huit mille francs laa daan laal accès te. ASX du ma liggéey mois bi yëpp bu ma liggéey yeneen jour jour euh, kii bi yeneen jour yoo xam ne sa war ñu woo ma dafa naan laal cent vingt mais gouvernement woote na suñ sama réew gouvernement woote na nee na dama soxla sama sama samay ndaw nañ ñëw parce que lii leen teg dafa métti kaay leen ma ma a liggéey mais bu ñëwee uh-huh. dina dina ëppale. ñun boobu lañ am te ba tey la ñuy am mais li ñu mën a naa lu bëri luy daw tey ji nii mun naa la wax ne gouvernement Macky yëgu ko te nar na ko yëg parce que du dëgg du yoon. daf ko war a yëg daf ko yëg a nar a yëgal nag dañ koy daab daabee suuf teguñu ko fenn mais suñ toni xoolal suñ toni xoolal suñu toni yi. Mhm. toni boobu bi ñu la ko joxee. ay chinois la de ay toni kay. bi pare France la jógee xam nga fan la jógee. Chine Chine lii ah. ba problème toni boobu la ko joxee toni yi dañoo fruit sama gars yi nekk circulation boo leen xoolee sax da leen yërëm da nga leen yërëm on a on a fu mu toll nii jéggi siraat la ñuy def. te dégg naa lu ne leen leen di jiiñ ah. non lu ne gars yi dañu jiiñ ay sakk ñi dañu jiiñ ñu on est que ñu nekk fii pour pour l'ordre mais on est là pour le alors que ñun on est des citoyens honnêtes et dignes a servi pour nos pays ñun dañoo joyé suñu bakkan pour askan bi ñun duñ ñëwaat encore di sommer le bordel dans, dans ce pays ñun ordre lañuy tek dans, dans ce pays mais c'est pas le désordre nit ñi dañuy jing lu né mais lepp suñu njit la suñu njit yi la parce que tay jii ni koo wax ñu menacer la dañ lay dax autrement loolu lañ lay wax on vous avez interdit de parler à la presse bo waxee presse dañ lay dakh loolu lañ lay wax directement xam nga lolu loolu yoon uh-huh. ñu nak pays bi on est dans un pays de droit ay citoyen lañ citoyen digne et honnête ñoo xam dañoo servir sen pays kon am nañ droit droit revendiquer dara mais loo sax comme ñu mais yoon direction même suñu suñu borom direction mais liñ fay laal la wax bu ba personnel direction ba personnel direction ba té comme pour dire je veux dire une chose parce que dama dama dama ci lu leer personnel direction ba ay ségrégation direction Il y jigéen sama comprendre ay xamuñu dara nga teg leen direction da ngay dem dangal rek lañ fa nekkee da ngay dem direction di leen jéem ay information mais on te si ñi gën a métti lan ci que mënu ma comprendre le salaire est sacré bu nekk di ngay kii liggéey bu ñu lay fay sa salaire c'est nga koy nëbb mais ñun dañuy xëy sa jabar sa doom sa waa koñ bi ñëpp xam nañ ne yow cinquante mille francs lañ lay jox bu jotee ñeneen dem lañ jël seen seen cinquante mille francs yi nga dëgg rajo di ko publicité foo tourné ñuy publicité suñu salaire ñoom ñoom ñoom moom moom man man dama direction di laaj kaka boobu mais on m'a menacé ni non la laj dañ ma ne carrément li bo ci topé lu mën la laa dax ASP waaw ma ne boo ma daxee ASP ma dem feneen mais le problème moy ñun yeen yéen gëluñu dem ay patriotisme ñun on est des patriotisme respecté respecté ñu wa ASP parce que lu bëri fi tay jii de bu ASP pare wa direction ñoo ñu respecté wul parce que li ñu waxante ak nit ñi defuñ ci dar dañu néwon kenn ku ne dañ lay affecter sa gox ben defuñ ko deuxièmement ñu ne ñu da ngay xam ne kenn ku ne fuñ la affecter mun nga am prix prime bo xam dañ la koy jox mais prime bobu ñu ngi ko jox ñoon ñu koy garder di koy direction ñom prime bobu anamu fa lañ koy duggal dudul yoon fa lañ koy duggal prime bi ñun gisunu ko dé ba légui té du yoon ñaata ngeen ñun fi ñu on est 20 ñaata ngeen ci ASP ci bopam mënuñ la wax ñaata lañu na la incompétence fa toll mënuñ la wax ñaata ñu ngi ni instant bi di wo di ñuy téléphone di wax ni né waaw est ce que yow jot nga sa carte yow fan lañ la affecté té yow ngi liggé ça fait des mois ñi ñi lay wo téléphone la laaj yow fan lañ la affecté est ce que jot nga sa carte gap mais mais mais moi je comprends pas

on a marre parce que dañuy yëngal fu ñu wax bi ñu déggee loolu bi ñu déggee loolu rek automatiquement rek gars yi xam nañu arrêté ko 5000 francs yi am na ñoo xam ne man bandi da dagaguñ 5000 francs pour carte gab bi waaw carte gab bi 5000 francs yi pour defaral leen cap gab dañ a dagg ku ne 5000 si nga bi ñuy bi ñuy bi ñuy wax IBA dafa ne depuis photo yi ba ci carte du ñu fay dërëm IBA loolu la ñu wax mais léegi à nos grandes surprises 5000 sur combien de personnes. 5000 bu bëri ku yor carte temps bi dagg dagg nañ la 5000 man mii di wax ak yow man jotaguma carte ba tey. te dagg nañ la no non daggaguñ ma 5000 xam naa jotuma carte moo tax dagguñu ma mais ñu jotoon carte yi dagg nañ la 5000 dañu xam naa dañuy xaar ba jox ma carte soog maa dagg. Hmm. mais nag loolu du yomb. Hmm. non seen yaram dawul de. non seen yaram dawul sama yow en ancien militaire bi dama servi pays bay bàyyi lépp bàyyi moromam fii moromam raw ko parce que ñu ñu bàyyi fii deux ans ñun ñu raw nañu ñu ñëw fii di jafee si gardiennage bi dara doxul ci gardiennage bi

mais avocat ligue mënul nekk sécurité parce que si ñu waxee des jaara gendarmerie man je suis pas d'accord il y a des anciens colonels dans ce pays il y a des anciens généraux dans ce pays il y a des des anciens militaires dans ce pays nous xam des sécurité rek lañ jàng bi ñu juddoo sécurité rek lañ def ñoo gérer affaire bi affaire bi ci yoon mais c'est pas jox ko qui la muy def liko neex. du yoon. Mm-hmm. du yoon président dafa na fnaf def audit ci ASP. population bi nooy gisee population Sénégal bi est-ce que respecté nañ leen. population bon population bi am na ñoo xam ne respecté nañ aspect lool mais am na ñoo xam ne respecté jéemuñ sax respecté aspect parce que problème mooy xam nga Sénégal moo xam. bien suñu jiit mu ñooñu teg loolu de plus Sénégal aussi politique mooy loolu politique dafa day yàqalu bëri ñu bëri respecté mais ñun lu ñu xam ñun suñu liggéey lañ xam duñu sàcc duñu fen ru njàmbaaj. suñu liggéey am na ñun ciy jiñ sàcc. waaw non xam nga kër boo dem am na ñu bon am na ñu baax. li leen leen di fay li li ñu waxante gi yéen waxante woon ak yéen est-ce que moom la ñuy def instant bi. déedéet cinquante mille fay te bu ñu la ay le dix la ko onze. te boo ko fayoo ko même pas trois jours quatre mu jeex. am nga jabar. moom ma jabar man tane naa sax bu ma amoon jabar mu doy waar moo tax nee naa leen takkaguma kenn cinquante mille du ma ci bokk moo ko bokk kenn. waaw man jabar day gën a metti sàcc sax danga ko def. des fois gis ay ay ASP yu sàcc ak ñu ko def fële fa ñuy liggéey parce que looloo tax duñ dem ak seen ngor ba pare tamit salaire bi salaire misère la. am am na ñi ci am jabar. jaanaaw beaucoup dix xool dix dix personnes yoo jël huit am nañ jabar wala neuf yi sax. dañuy dañuy misère ci misère la ñuy dund. waaw galère kay. Mhm. waaw yow lan moo tax nga dugg ci bi nga xamee ni fii ni cinquante mille la loolu la teree bàyyi fi mu ne nii. ah benn instant yi ndar kepp nan la mënoo ci mënoo cee génn yow amoo amagoo lu ko gën. boo ko bàyyee di yóotu leneen tëgg loolu noonu gisagoo ko da ngay bàyyi ba gis lu ko gën kay soo ko bàyyi. Hmm. mais instant yi amagoo lu ko gën ba pare di bàyyi. Hmm. da ngay wax soo leen di dem mission nii par exemple nga jógee Dakar ñu yóbbu la mission euh, Touba wala ñu yóbbu mission euh, Ndar ak yooyu dañ leen di jox frais de déplacement ak ay per ak yooyu. non non jox dara. duñ la sax jox la jox paas. paas xanaa ñoom ñoo lay déplacer des fois ci seen oto yeeg yooyu noonu mais. waaw mais soo leen fa demee lan ngeen di amee lan ngeen di lekk. waaw la la nga fa fekk kay bu fekkee ay jàng la nga fekk. nga lekk ca lekki jàng ya. waaw. am lekk ci lekki ngénte la. fekkee meeting la. du dañ lay gàddu gàddu ci oto daal mel ni ku def jël jël ay mala yóbbu. na ngay def ba tas kay kay. ñaata ngeen ci senegal bon ñoom dañ ñëwoon dix mille dix dix mille lañ formé woon. Uh-huh. ñu ni dix mil ñooy liggéey ba boo nee après renseignement yenn ASP yi dem ci agence bu mag bu nee na lii liggéey matu sax 4000 te boo xoolee noonu donc la demee am na ñoo xam ne ñi defoon nañ mais ba léegi ñu ngi chômé am na ñoo xam ne mosuñoo def formation te ñu ngi liggéey. ah bon mosuñoo def te ñu ngi liggéey. mais tey jii lii ak liggéeyu su yeneen société gardiennage yi bu gën. yooyu gën fopp. société gardiennage. ñoo gën fopp mais ñoom ñi ngi jooy. waaw ñoo ñoo gën le fopp yow lu weesu 50000 mille les 55000 sax moo tane 50000 kay 50000 kay lépp gën. ok yow soo fayee ko nooy dèjà da ngay jox paa bi 10 000 jox mère bi 10 000 yow say frère ak say sœur xam nga noo def nga jox leen ak say jarbaat yi yow li ngay dese du mat sax quinze 000 bu dee sama genre gi amuñu soxna mais boo amee soxna moom comme ça waay nee na ci saa day mel ak su waree rek da koy jot rek dugal. lan ngeen lan ban yóbbante ngeen di def président Macky Sall waxuma sax seen directeur mais président bi nga xam moom moo moom moo génnee euh, projet bi. président bi génne projet bi ñu koy sant di ko gërëm mais suñu salaire daal bu kenn publicité di seen salaire bi fekkee mun mënuñu koo yokk jarul publicité waaw waaw loolu rek laay yóbbante ma kese yow loo président Macky Sall même chose rek salaire yi ñu jëm koo yokk rek te bàyyi wax ji quoi parce que li ñu waxoon ak li ñu def moom sa fait <sniffs> c'est diamétralement opposé mu tey doon démb duma si dugg man ah. toogoon di di sa dëkk yeewu sax ku gën da am jàmm quoi ils sont tout pour rien te tiin doo leen am arme yoru leen arme yoru leen. dara boo jénguwul kay gaa yi dox sa kaw yenn saa sax ñun ñi nekk ñaan na mu sax ñoo xaw a tànn ñun gaa yi daan ñu xaw a jox tër ndax danañ leen ko ci param patam boo ko mënee yóbbu brigade bi bu demee day am problème mais ñeneen ñi ci yeneen service yi faale wuñ ay doomi Macky leen leen di wax. la ñuy wax. doomu Macky Sall ah? a bien sûr. te ay doomu Macky Sall leen di tuddee. waaw doomu Macky <laughs> yow ci doomu Macky Sall yi nga bokk. laa bokk. te teeloo. ah doomu Macky Sall yi laa bokk de doomu Macky Sall man dama cee fier sax. Uh-huh. waaye man leen eh, am na benn marché bu ma demoon. Uh-huh. benn waay sama daanaka sama benn simis ba rek ko xotti. Uh-huh. doo am arme doo am dara sama benn simis ba xotti ko na nii dama ko sol. waaye yéen tam ni mën ngeen a maññee arme que xam ngeen dara ci arme yéen non am na ñu jaar arme. même même bu dul loolu ñu def formation bu baax defar kii bu arme defar yooyu wala boobu amul arme sax au moins ñu bañ laa am am yoo xam ne bañ la faa yóbbu. Ah. parce am na foo xam te ji yow mii yow mii di wax ak man nii doo fa dugg doo fa jaar buñ la xamee ni yow yaay diw doo fa dem. Mm-hmm. wala da ngay wut ku la couvrir noonu lay demee quoi. waaw mais c'est cinquante mille yi nag nga ci mën a dund ak sa jabar ak say doom du loolu laa location vingt cinq mille francs vingt cinq mille francs moo lay dese vingt cinq mille francs chaque jour nu mu dee dee nga na joxaat joyetewaat mille cinq cent mbaa deux mille francs ñaata yow dama vingt cinq mille dama da ko mat looy paas boo demee fu fu fu fu ngeen liggéey nu mu dee dee foog nga lekk mais ñun noonu la ñuy doxee ñun des fois dañuy maajaal de mhm. du ma la ndax dañuy maajaal ah imagine ku affecté Gorée te nga dëkk Pikine boo wàccee boo ñibbi boo ñibbi te amoo dërëm looy def. ñom duñ la wutal fo nek su la. wutal ñu wutal waaye fu fu ñu la wutal looy yow xam la la ñu xam ci yow c'est heure de service nga door ko bu daanu ñu la demal nga ñibi ñibi nga xam lé fu mu toll ni président bi et puis li ma gën a moy ASP ASP président bee ko moom Dakar Dem dik président le gouvernement bee ko moom mais pourquoi gouvernement gouvernement bi du décréter né ASP légui duñ fay ci Dakar Dem Dikk mu yombal ñu transport mais gouvernement mu nee la gouvernement est-ce que président présidence est-ce que yegg nañ luy xew ASP parce que du yoon avec les 50 000 war war nañ leen mëna téggil ay téggil yeen ni man dama ni won sax ñuy téggil ko képp ko xam da ngay vigile wala nga bok ASP professionnel té muy yoon ñu téggil leen généraliser ko tous les vigiles boy dem na yeneen vigile fa nga am carte ma nga sol tenue bo duggé ay Dakar tenue tenue wala nga yor carte professionnel carte professionnel bi bo duggé nga won ko receveur bi mais ASP ñun dañoo sonn ñun dañoo sonn franchement dañuy yelwaan des fois pour lek am ñoo xam ne fu ñuy liggéey duñu lek tribunal ñu fa nekk duñu lek té des fois audience bu amé dañuy taxaw ba 22 heures ay jigéen ñoo fa nekk ay ASP bu ñu wàccee vingt deux heures nan la ñibbi tëngëj fu mu ñibbee ak lan toute la journée nga toog nga taxaw benn place lekkoo nga nar a jógee fii dem ba tëngëj avec cinquante mille francs sa non di nga tardé. moo taxit dégg naa ñu bari bàyyi nañ. mais il faut ñu bàyyi nañ waxante dëgg il ñu bàyyi bëgg nañ liggéeyal suñu réew mi mais mais liggéeyal suñu réew mi nga bëgg a dee nag duñ ko defal kenn nag mais sincèrement ñun sonn nañu. loolu yow lu tax bàyyi woo ba décembre la ñuy xaar décembre la ñuy askan bi bu waxul si askan bi bu waxul si ASP parce que ñu ngi bëgg a dee ku bëgg ku bëgg a dee na wekku sono nañu on en a marre. Hmm. te bëgguñu nag bëgguñu nag c'est pas des c'est pas c'est pas une c'est pas une menace mais bëgguñu ASP fi fipp buñ fippoo du baax lu leer laa la wax buñ fippoo du baax on est des anciens militaires on sait manier l'arme xam nañu nan lañ nan la ñuy protéger suñu bopp xam nañ nan lañ jàkkaarloo la gaay mais bëgguñu fipp parce que réew bi bëgguñu ko yàq on est des citoyens on est dignes je sais bien que le président le président de la République nous respecte il nous respecte beaucoup parce que boo see mu créé lii président bi du tey du ñu yóbbu tribunal bu ñu respecté du ñu yóbbu du ñu yóbbu lay poli dans des nga lu muy def daf ñuy day créé rek yóbbu ñu foo mais tey ñu ñëw policiers yi ñu lépp ñu liggéey

sama borom ñu ñu ne ma kii bi daf dañuy def forme kii AFP. Ah. ma daal di ñëw dugg bokk. Mhm. léegi ma bokkee ñooy jox ñu suñuy fiche nañu assumer leen di ngeen dinañ di leen leen dinañ leen kii. Mhm. dañ leen di ku ne ku ci ne buñ la buñ la jëlee dañ lay teg ñu nga nekk ay ay ay de sécurité ñun tam ñu daal di bokk bu ñu bokkee ñu ne ñu léegi signé leen mais ku ci nekk boo signé. doo ko yóbbu da nga ko fiy bàyyi. Mm-hmm. am ngeen contrat deux ans. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu signé. ñooñu mais ñun yéen cinquante mille lañ leen di fay. mais fenn fépp fu ñu leen yóbbu. ak ah, du ngeen fa am prime ñooñu li ñuy am. ñooñu li ñuy am loolu ngeen di am. ñu wax ñi loolu. ñu daal di koy signé. Mm-hmm. léegi mais ñun fi ñu ñu ñëwee ba tey itam ñun gisuñu suñuy prime mm-hmm. gisuñu dara mm-hmm. mais teewul ba tey ñu ngi toog parce que lu nekk ñu ngi koy dégg même da ngay solteni sax di wax ak nit mu naan laan mais yow bu ma fonto waa yow xanaa du sadaxu cinquante mille yi lay fay moo tax ngay jaay affaire nii te loolu lépp xam nga bëgg a liggéey rek moo ko waral xam nga ku yor say jab say doom yor sa jëkkër yor sa war nga mën a jàppale sa jëkkër say doom aussi war nga leen mën a def defal dara da nga am waaw man dama am jëkkër am naa ñetti doom da nga dugg ASP pour jàppale sa jëkkër waaw dama dugg ASP pour jàppale samay doom mais boobu ba tey daal moom man de wax dëgg yàlla moom gisaguma si benn kii mais nag maa ngi jàpp maa ngi jàpp ba kër may gis may gis mais na mais la nga yaakaaroon gisoo ko la ma yaakaaroon daal gis gisaguma ko nag gisaguma ko seen xaar salaire yi ñuy publicité nag noo ko gisee man moom loolu kontaanuma si parce que loolu moo tax ba tey ñun ñu respecté wuñ ñu tëree yu ñuy ñuy yu moo tax ñu ñu respecté parce que da ngay ñëw wax ak nit ki nekk defal lii mu ne la bu ma bu ma fontoo parce que fayu ñu la dul sagaru cinquante mille ngir bëgg a nekk fii di jaay ñu affaire ah. loolu moom même bu la respecté nga sol tenue sax teewul dinañ la waxaale loolu ah. loolu tam moom neexuñu wax nañ ko mais neexuñu ñu ah. mën a dimbalee daal moom ñu dimbalee ñu ko parce que ñun tam sonn nañ parce que cinquante bi nga ko jotee nga xam nga ne fajaluñ kenn dara. Mm, ba pare ñu siiwal ko. ba pare ñu siiwal ko xam nga loolu neexul. solde yi dañ koy jël di ko publicité maanaam ci média man ci man dama gis ni loolu. mais solde c'est secret. Mm-hmm. nu mu tuuti tuuti c'est secret am loo xamante ni jarul ñu ko jël sax di ko publicité ci média mu mm-hmm. doon ñaar dërëm sax nañ ko jox ku ko yalool mm-hmm. donc de un de damay delluwaat ñoom ci lu ñu waxoon mooy problème de motivation. gis nga agence bi bañ ko ubbi ñun dañ ci amoon yaakaar bu rëy. Mhm. ñu si bëri ñu bëri entre ñun majeure partie ci ñun agent yi dañ doon liggéey côté secteur privé booy xool actuellement nii ni ñuy percevoir actuellement nii on percevait le double ci fi ñu nekkoon voire sax lu ko ëpp. Mhm. waaw man mii agent de sécurité laa woon ma booy xool fi ma nekkoon maa ngi nekkoon ci benn boîte. je percevais plus que luñ may fay fi mu nekk mais lan lu taxoon ma démissionné ñëw am yaakaar mm-hmm. waaw mais fi mu ne nii ngan dam maamu déception lañ ci am agence bi mm-hmm. autant dañ doon jéem a def loolu di dagg commencé woon nañu commencé woon ko gars yi déconné ba demoon sax ne dañuy def marche mm-hmm. place de l'obélisque de nga wax ji ba pare ak di ci jéem a kocc huit cent francs par mois muy mutuelle de santé bi ni huit cent francs te ba mois bi ñu defee loolu le lendemain ngandam ay jalu tëni lañ fa fekk gars yi suñu bàyyi leen ñu démissionné démissionné te mars boobu sax li tax jotuñu ko d' après man li ma dégg man jotuma woon dem mais d' après man sama yenn collègue yi Ablaye Matar Diop nee na Ablaye Matar Diop bu fekkee mi ngi mi ngi dégg moom moo ci génnee gars yi ne leen après jarul ngeen fi nekk mars après man naa réglé loolu gars yi tas mais mars bi moom bu fi yeboo lii moom par exemple déception dañ ci am déception daal ci la mu wax ci gàttal te te léegi ba pare ñu ñëwaat ci motivation motivation yi ñoom dañ waxoon bu ci nekk. mais loolu ay waxu kese la wala ñu bind ngeen signé ko la. dañ dañ taxaw wax ko. ñaan kan moo ko wax. wax ko waa direction à savoir cadre yi fa nekkoon colonel yi major yi man ana déception mu ci mucc ci média yi léeg nga gis ko ci média yi inter li muy wax ci média yi par rapport ak li am ci ci agence bi c'est diamétralement opposé. c'est pas vrai c'est pas vrai. Mhm. agence bi man li ma ci gën a métti sax li ma gën a damay leeral ci motivation yi. dañ ko bind ba pare taxaw wax ko ku ci ne fi ñu la affecté pécule daal pécule de cinquante mille ngay am ku ne fu ñu la affecté ñoom ñoo ciy teg motivation motivation bu fekkee da nga fa am trente mille baax na bu dee da fa am quarante mille baax na bu dee da nga fa am cinquante mille bu dee da nga fa am cent mille mm, mm. mais yow fii ngay motivation yi mais fii ngay monté nii. mais ñooñu est ce que ñi ngi versé. ñi ngi versé kaa ma wax la nag falaa bëggoon ñëw moo taxoon ma gën a taxaw fii di la xaar. barki Mouhamed laajal ñii. damay fexe ba am euh, copie bi. copie contrat yi convention yi ñaari camp yi fi ma nekk ak euh, agence bi fii ñu nekk nii ñun dañ taxaw di di benn jour dañ toog fii nii gars yi nekk ci bunt bi ñu ne ñu ah suñ suñu waa suñu waa direction ñëw nañ fi mais bañ fi ñëwee dugg nañ yéeg nañ ci kaw am na lu luñ fa jël dem nañ xaalis waaw mooy seen li leen war a verser maa ngi ñëw ñu daan noppil ñu daan ne waaw loolu nu mu demee noonu léegi bañ ñëwee ñu koy ñaxtu affaire bi metti mënuñu ko muñ ba affaire bi yéeg ci kaw léegi bañ demee directeur ressources humaines moo ñu woo rassemblé ñu. Mhm. ba ñu ñëw. mu taxaw mu wax mu ne moom doon na dégg rumeur yi. Mhm. mais da doon xaar kit à ce que ñu wax ko mu taxaw liiral ñu convention ñaari camp yëpp. fi nekk nii chaque le cinq du mois moom moo ñu ko wax directeur ressources humaines yi bil jeexi chaque le cinq chaque le cinq du mois hmm? ñoom ñi ngi versé ñu si on est vingt vingt 20, 30 000 francs multipliés par 20, ça fait combien 630 000 francs. Il verse à l'azan 630 000 francs chaque mois. Ils ko gis Mon fils a fait ak feneen a ci yem mhm. te doo ko gis selon man c'est samay jàngat un quoi ci samay samay idée la man nous toog nous créer ah, comme nous, on donne nous, woon à amuñu droit marche amuñu droit marche amuñu droit syndiqué amuñu droit grève mais am nañ droit revendiquer. dañ leen di dàq de dañ leen di dàq de. mais mais déglu revendication bi c'est revendication mais auprès des médias. doon naa la wër. comme que yow tombé naa ci yow. ba pare keroog samedi bee passé maa ngi doon déglu émission yi. j'étais avec Léopold man sax dama ne woon après damay bàyyi ba samedi. peut-être ma woote bu ma munee dugg ci antenne bi exposé affaire bi. comme mm. que yàlla def na